bonsoir salaamaaleykum mbokk auditeurs ak auditrices Rewmi FM daleen ak jàmm seen émission sans filtre euh, di jotaayu ndaw ñi fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jot 15 jàpp 16h euh, tey ñu dalal Thierno Bakhoum directeur Bawol Film Festival lu ñu fiy fas yéene waxtaanee euh, mooy ndaw ñi ak métier acteur loolu lañ fi fas yéene waxtaanee balaa ma koy jox kàddu gi Mofal maa ngi lay nuyu. Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñuy déglu jamono ji ci seen euh, rajo Rewmi FM à travers votre émission Espace donc di euh, rafetlu saa su nekk toogaay bi toog fii di waxtaanee lépp loo xamante ni moom moo concerne wàllu jeunesse. waaw ñu dem ci ñaar yi gën a fës bu njëkk bi dañuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy arrestation bu kii di Barthélémy Diaz fa nga xamante ni moom la doon dem doon waajal def benn tournée bu ndaw fa nga xamante ni moom mooy Petersen si lañ ko teg loxo yóbbu woon ko. fi nga xamante ni moom mooy euh, fële di euh, police bu jëppal mais jamono jii ñu wax ni ñu ngi koy doon déplacé pour yóbbu ko ci benn benn police euh, am ay manifestation yu taxoon foofu ne du du génn mais ba jamono ji ñu ngi doon wax ne dañ koy déplacé yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy beneen commissariat ngir ñu mën koo mën a entendre foofu ñu doon ko retenir foofu entendre ñuy xool lan lan ñuy def ak moom ci li nga xamante ne ñu wax ne moom lañ koy toppee ne doon moo nekk daal li gën a fës ci information yi léegi nii beneen moom Euh, polémique bi nga xamante ne moo am jamono ji ci toile bi muy euh, ki nga xamante ne moom mooy Diary saw sénégalais jàpp ne daf leen euh, saaga ci benn publication bu def na ko ci terme yi sax bu nga demaat sax day day day xaw a métti tuuti mais je pense que sénégalais yu bëri ñi ngi ñi ngi ñaawlu mm. yooyu kàddu nga xamante ne Diary Sow mi ngi koy yëkkati te ba mu réeree sénégalais yu bëri dañoo dañoo jóg mobiliser wu ngir wër ko ba ba mu feeñ ba mu feeñee nag muy ne boppam ne moom léegi parce que français la wala na lu ko protège yu alors que fii la fii bu mu fàttali ne fii la fii la màggee fii defee lépp jàng rek moom moo ko taxoon moo ko yóbbu foofu donc bu mu yëg boppam ba nga xamante ne jamono ji euh, day commencé di wax sénégalais loo xamante ni waru koo wax ak tamit di kàddu yoo xamante ni ñi nga xamante ñoo bokk ak moom sax waaso laay wax muy tukulóor yi dañuy dañuy dañuy tuutal seen bopp euh, si si loolu xamante ne jaar sox na ko donc comme li ñuy waxaat rek na euh, daal di ñëw si kanam sénégalais yi mu daal di baalu ak sénégalais ci wax jooju nga xamante ne wax na ko sinon conséquences yi si dara amaat xalaat euh, ci ci moom la nar a mettre day mais du mettre si côté sénégalais yi. merci Mor Fall euh, ñu ngi leen nuyu di am mbégte contenté dalal la fii suñu plateau sans fil suñu bàyyi la nga nuyu mbokk auditeur Rewmi FM. déjà maa leen nuyu bu baax di euh, rafetlu invitation bi et di remercier sama équipe. Mm-hmm. voilà ñi nga xamante ne ñoom ñoo porté le Bawol Film Festival muy les jeunes cinéastes du Sénégal et tous nos collaborateurs. Mm-hmm. aujourd'hui on est vraiment on est vraiment fiers d'être ici au niveau de votre de votre plateau pour mm-hmm. waxtaanee ci ci ndaw yi. voilà. Euh, ndax am nga looy sànni ci rubrique actualité bi notamment sortie Diary Sow bi ak euh, arrestation Barthélémy Diaz. waaw déjà bu nekkee arrestation Barthélémy Diaz bi euh, mënuñu def lu dul déjà di ko mettitlu nakaru. dans la mesure où on est dans un pays de démocratie et pratiquement on est euh, ci benn période boo xamante ne période de campagne la voilà donc euh, tout acte posé mérite d'être évalué à sa juste valeur mm -hmm. maintenant peut-être am na ay tenants am na ay aboutissants voilà dans la mesure où nous on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants man je pose une simple question à savoir est-ce que amoon na la permission des autorités locales oui ou non voilà donc euh, bu nekkoon am na la permission comme tout bon citoyen il a le droit mhm. dem fi nga xamante ne moom la war a dem def li nga xamante ne moom la war a def dans les conditions de l'art mhm. maintenant nag bu nekkee amu ko nag moom je pense que c'est une question de responsabilité individuelle en tant que leader politique mhm. voilà et mu ngi noonu comme amuñu ci ay information yoo xamante ne vraiment permettre ñu ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy arrestation bi du di ko métti lu quoi bu nekkee cas Diary Sow je pense très bien que ça m'intéresse déjà mm -hmm. j'ai suivi cette actualité mhm. voilà et bu dul dara aussi jaar na Diourbel mhm. et moi je suis voilà originaire de Diourbel mhm. fu mu amee bag laa amee bac ñu ko coaché jàngal ko muy le professeur Pape Farisey tey bokk na ci suñuy coach ak suñuy conseil donc euh, mu mu nekkaat doomu xalpulaar te sama yaay di xalpulaar mhm. donc euh, comme nu ko suma sang bi waxee tout à l'heure dañ koy mettetlu mhm. dañ koy mettetlu bu baax parce que situation bi nga xamante ne moo ko fi daloon récemment mhm. ba mu ko dalee ñun ñëpp ñoo ci taxaw voilà assister ko ba yàlla def li nga xamante ne moom mooy lu gën et pratiquement sortie bi nga xamante ne moom def récemment franchement dem Europe wala dem bitim réew jàngi warul soppi doomu aadama bu nekkee doomu xalpulaar nga ñun ñëpp xam nañ ne ñun dañaa yaar ci suñuy racine mhm. voilà dañaa yaar ci ñu fonk ci nga xamante ne moom mooy suñu culture mhm. suñu cosaan ak suñu aada et pratiquement yenn waxi sax amuñu audace di ko wax à plus forte yi ki nga xamante ne jigéen la donc tey je pense très bien que en tant que xalpulaar wala boog en tant que doomu xalpulaar loolu daf ñaa metti mhm. parce que fu ñu ko waxee rek dinañ génnee connotation xalpulaar bi et pratiquement euh, jaar na bawal tey tamit suñuy bàyyi nekk ay bawal bawal ñu boole ñaari Euh, groupe yi nga xamante ne peut-être ku leen xam-xam leen ci yar ak teggin ak bëgg ci li nga xamante ne moom la ñu moom lañ doon ak moom lañu nekk mhm. par ailleurs euh, peut-être le professeur Pape Farid Seye damay rabattre ci lettre ouverte bu mu ko adressé mhm. accompagné na ko voilà donc euh, wax na ko mu dégg dëgg la nag mu ngi koy woo jotu ko mais war na waajuram bu jigéen wax ko li nga xamante ne moom la ko war a wax du ñu def nag lu dul appeler ko à la raison Mm-hmm. voilà mu revenir à ses meilleurs sentiments en mm-hmm. tant que ndaw xam nañ ne fougue de jeunesse dina am mm-hmm. mais bëri ñoom Cheikh Anta ñi nga xamante génn nañ dem jàngi <coughs> développer ay idées yoo xamante c'est pertinent pour le continent africain defagul dara quoi donc je tout simplement dire que Diary Sow tojul fenn wala boog tojagul fenn elle très jeune elle a beaucoup de choses à faire elle est de talent elle est mais na xam ne carrément le monde Bakhoum yow yaay directeur Bawol Film Festival moo di suñu gan euh, donc euh, laataa ñuy dugg seen projet bi nga xam ne yéen a ngi koy waajal bëggoon na euh, ñu waxtaane tuuti comme yéen nga xam ne yéen a ngi ci wàllum film production film ak lépp tey Thierno gis nañ ndaw ñi nu ñuy lancé wu ci métier cinéma ban jàngat nga ci xam lan mooy waral métier ndaw yi tey ku nekk tey bëgg a doon acteur wala actrice. amee merci beaucoup ci question boobu. donc euh, loolu moom c'est simple on est à l'ère du numérique mhm. ñëpp xam nañ ne là où va le monde tout sera imagé et pratiquement peut-être mhm. on ne doit pas rater le train du rendez-vous comme on a raté euh, beaucoup de grands rendez-vous mhm. dans l'histoire donc euh, l'évolution du monde fu mu toll tey waruñu ko rater donc ñëpp xam nañ ne cinéma mu ngi commencer di prendre sa place petit à petit dans les sphères en fait euh, des Sénégalais. Mm -hmm. ou bien dans l'esphère mondiale même jeu dirais. parce que tout simplement outil la arme la arme de guerre parce que mën nga ci def de la propagande de la propagande mën nga ci def lu la neex et aussi mën nga ci véhiculer voilà li nga xamante ne moom nga bëgg a def muy arme de communication positive. donc euh, beneen vecteur bi mooy vecteur de création d'emploi la voilà donc à l'image de Nollywood à l'image de Bollywood à l'image de Hollywood. Mhm. donc dëkk yi nga xamante ne mel nañu comme beneen Burkina Faso aussi ñu ngi koy approprier bu baax donc loolu rek ay quelques point la ci li nga xamante ne tey permettre na yenn état yi ñuy dugal seen loxo dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif mhm. pour booster seen dëkk mhm. beneen bi nga xamante ne moom moo ci euh, yokku moom mooy le volet tourisme pratiquement ñëpp xam nañ ne dans le secteur du cinéma am volet boobu da cee occuper une place très importante. Mm-hmm. pratiquement mën nañ ci def lépp li nga xamante ne moom moo ñu moom moo ñu soxal wala moom moo ñu yitteel. Mm-hmm. ba tax na comme ni ñu ko gisee ces dix dernières années ou bien ces quinze dernières années ndaw yi ñu ngi commencé bu baax a baax a baax a baax di intéressé wu ci cinéma surtout volet actorat. ñëpp ñu ngi fiy fàttaliku récemment euh, castingu Marodi bi nga xamante ne y avait plus de cent personnes. Mm-hmm. voilà ça ce sont et pratiquement tey dafa jot ñu mën a encadrer la jeunesse bi nga xamante ne bëgg nañ cinéma donc ils sont des passionnés ou bien elles sont des passionnées mm-hmm. voilà dans ce secteur mm-hmm. encadrer leen cela veut dire que jox leen des formations idoines mm-hmm. adéquates ok ba pare taxawu leen sur le plan technique parce que y a pas l'actorat moo nekk dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif je me dis que ñoom la ñuy gis d'accord voilà mais derrière y a d'autres personnes yoo xamante ne ñu ngi liggéey pour permettre ñooñu tey ñu mën leen gis de façon qualitative mm-hmm. ok mais pas de façon quantitative maintenant tout cela étant dit moi je me dis en tant que jeune y a de la place pour tout le monde maintenant reste à se former mm-hmm. voilà xam lan mooy le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif mm-hmm. xam lu man lan mooy les tenants xam lan mooy les aboutissants pour que tey ñu mën a am une industrie cinématographique boo xamante ne dina mën a permettre ñu créer de l'emploi parce que mm. tout simplement un court métrage peut drainer plus de cent personnes la preuve générique gu film bu jeexee compteel nombre de personnes yu intervenir mm-hmm. kenn ku nekk tey bu amoon benn salaire u cent mille je pense très bien que un budget de court métrage peut aller jusqu'à foofu sax laa bëggoon est leen di fay waaw bu nekkee dans le cinéma moom dañ leen di fay ça moom il faudra le dire parce que le cinéma est composé de ça même un figurant dañ le cinéma tout le monde est payé parce que je me justifie parce que tout simplement déjà dañ ko catégoriser. Mm-hmm. le cinéma bu ñu ko waxee da nga naan am na les films de court métrage. Mm-hmm. am na les films de moyen métrage. Mm-hmm. am na les films de long métrage. am na lu ñu tuddee les fictions. am na lu ñu tuddee les am les docufictions. et cetera et cetera. maintenant nag am na ay genre ok maintenant nag le secteur tey fii bu ñu xoolee y a l'audiovisuel créatif. l'audiovisuel dafa xaw a nduroog cinéma mais du cinéma ok. mais ñoom ils on cette vocation là d'être au niveau des médias par mhm. exemple ñu nekk ci euh, chaîne de télévision yi mhm. ñoom la ñuy tuddee ay caméraman ou bien les techniciens de TV de de ou les réalisa les réalisateurs de télévision mhm. donc tey ñu ngi assister à un phénomène boo xamante ne phénomène de série la mais loolu dañu am ay objectifs yu très clair c'est la vocation commerciale ok donc tey ñooñu am nañ seen système de travail nu aussi en tant que cinéaste am nañ suñu système de travail. Mhm. ñun suñu système de travail ci lii la sukkandiku dangay am sa projet filmique. Mhm. nga am sa scénario abouti mun na doon documentaire mun na doon fiction mun na doon long métrage moyen métrage court métrage tout dépend ci sa background bi nga am. Mhm. boo ko amee y' a un budget le chargé de production moom day fay dem outil ce qu'on appelle les moyens de la réalisation de ce projet qui est déjà accouché sur papier. maintenant loolu dafa lu muy permettre mooy voilà à l'image de Atlantique par exemple bu Mati Diop am na quatre producteurs donc quatre nit ñi nga xamante ne ñoom seen xëy ak seen gont yëpp mooy dem uti xaalis pour ñëw injecté ko ci projet filmique bi pour que mu mën a def après des revenus sur des canaux yoo xamante ne dafa diverses donc moo waral dans le cinéma déjà y a un budget déjà ficelé y a une équipe technique déjà établie il y les profils déjà recherché et mhm. trouvés mhm. et pratiquement il y les accessoires muy décoration intérieure les costumes et cetera et cetera mhm. benn bu ci nekk dafa am njëkk te dañ koy jënd pour que tey lu nga bëgg def ñu mën ko jëmmal ci image yu cinématographique de qualité ok loolu moo waral même un figurant dans un film dañ koy fay ok maintenant nag bu nekkee tamit registre audiovisuel la am nañ ñoo xamante ne dañ leen di fay voilà ça c'est ça c'est mais bon maintenant nag ça c'est un autre débat voilà boo xamante ne peut-être nous on peut l'avoir parce que ñooñu bon du ñu ay acteurs mm-hmm. voilà le plus souvent on fait ce qu'on appelle le casting sauvage ou bien le casting marketing pour pouvoir détecter des profils yi nga xamante ne am nañ taaru nañ quoi par mm-hmm. exemple ou bien mën nañ jaay image ba nit ñi tey bu ñu leen xoolee bëgg leen. Mhm. ba ñoom lu ñu bëgg a véhiculer ñu véhiculer ko. Mhm. pour des sponsoring et cetera et cetera. Mhm. donc loolu dafa nekk li nga xamante ne dafa xaw a vaste. et pratiquement bon on est dans le même secteur actuellement parce que le secteur changé nañ ko. tuddee ko le secteur du cinéma et de créatif parce que dañ ko bëgg a parce que un cinéaste tamit quoi qu'on puisse dire bokkul dafa am dimension bu rëy bu mu laaj. voilà donc euh, bokkut ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, génnee ci yenn école de formation audiovisuelle yi. Mm-hmm. voilà pour ñëw ne dañuy def du cinéma quoi ils font des feuilletons ou bien des séries télévisées. d'accord voilà donc mu ngi noonu. beneen question ma la bëgg a laaj bëri na ndaw yi songu cinéma bi mais mm-hmm. bëri na aussi. série yi nga xam ne ñu ngi koy diffuser à travers les télé est-ce que du dem ba acculer les téléspectateurs ak lan moo waral série yi di gën di bëri. waa déjà dañu nekkoon ci benn logique de xeex parce que loolu tamit bañ ñu ko fàtte te loolu lu ñu war a la logique de xeex boobu moo nekkoon jëli fi lépp li nga xamante ne production étrangère la d'abord on se rappelle il y cinq ans ou bien il y a dix ans de cela mhm. lu nga doon gis mooy novelas voilà les séries brésiliennes mhm. ok donc séries yeneen xeet ñi ngay doon gis fii su mhm. suñu télévision yi loolu il faut le noter gis nañ ne dem nañ ba benn moment commencé nañ ci dugg ñuy dem bay def ce qu'on appelle de la consommation locale maintenant quoi qu'on puisse dire il faut admettre que dans nos télévisions suñuy série bopp ay nitu Sénégal nga ciy gis wala ay nitu africain wala boog ay ndaw réew mi nga ciy gis ñu ciy liggéey donc importé tuñ beneen série bi nga xamante ne à l'étranger lu jógee ñu ci doon fay les droits de diffusion et autres mm-hmm. donc ça c'est très clair il faudra mentionner ça mm -hmm. l'autre aspect bi nga xamante ne peut-être wax nga ko mooy est-ce que duñu dem ba accumuler non parce que tey dañu war a nekk ci benn logique. Mhm. le cinéma dafa am circuit normal bu muy jaar avant muy ñëw ci télévision. la télévision mooy dernière étape bu production filmique pour ñu mën ko ventiler parce que ce qu'on fait aussi c'est du business quoi c'est de l'industrie qu'on veut mettre en place voilà générer des milliards et des milliards de revenus. circuler jaar voilà donc déjà y a ce qu'on appelle euh, les avant-premières par exemple tey bu nekkee benn production dafa war a génn mu am beaucoup d'intervenants. dañuy def lu ñu tuddee avant première loolu dañ koy def sous format par exemple de guichet fermé pour nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy njëkk a am accès seetaan li nga xamante ne moom mooy production filmique boobu c'est comme ça que ça se passe d'abord au niveau de des des des, des yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a avancé mm-hmm. à l'image des États-Unis da ngay gis ñu naan la avant première bi génère na autant d'entrées ok entrée yooyu noonu mooy nit ñu jënd seen billet. Sénégal duñ ko def. dem parce que tamit loolu processus la voilà am na ñu koy def par exemple comme wala bokk mhm. série la boo xamante ne euh, respecté na norme cinématographique yi mhm. demoon na FESPACO et pratiquement primé nañ ko mhm. donc loolu tey lu mu jur mooy au niveau de grand théâtre defoon nañ avant première pour wane li nga xamante ne mooy les deux ou trois premiers épisodes yi nga xamante ne moom mooy les épisodes de Wala Bok dont le notre grand frère euh, Pape Abdoulaye Seck fait partie des réalisateurs mu nekk projet wu en fait euh, Fat Kandé Senghor mm voilà boobu benn aspect la deuxième aspect bi mooy au niveau des salles de cinéma mm parce mhm. que circuit la gars yi dañuy jàpp ne salle de cinéma yi dafa tëj non salle cinéma yi tëjul voilà la preuve Covid bi ba mu ba mu mhm. ba mu ba mu ba mu noote liiwee gars yi ba mu jeexee ñëpp par exemple en France par exemple dans les pays yi nga xamante ne ñoo les pays étrangers ñëpp dañaa daw dem ci salle de cinéma yi voilà maintenant il y a ce qu'on appelle aussi euh, les festivals mmh. ok parce que y a des films qui compétit qui, qui en compétition et qui vont remporter aussi des prix voilà maintenant tey ces la là s'ils ont de grands bailleurs ou bien de grands sponsors mm -hmm. voilà da gis benn prix boo xamante ne mën na dem ba dix millions cinquante millions anyway mm -hmm. tout dépend ci ñoom li nga xamante ne moom la am comme ay sponsors ou bien comme ay partenaires pour primer li nga xamante ne moom mooy les réalisateurs ou bien les réalisatrices de ces projets filmiques là mhm. donc mën nañ utiliser aussi la technologie avec les en fait euh, comme Netflix quoi ou bien Amazon li nga xamante ne tey boo seetaanee da ngay fay. Mhm. voilà donc loolu aussi c'est une possibilité loolu nag bu demee ba am ngay soog a ñëw ci télévision bi mhm. voilà parce que tey télévision plateforme la boo xamante ne peut-être voilà dina mën a permettre ñeneen ñu amul accès voilà mun a am accès ci loolu mais boobaa les de diffusion aussi la télévision va l'acheter. d'accord donc circuit boobu yëpp muy jaar plus de cinq bi par exemple ku fa jaar normalement bu nekkee teg nga ko ci yoon. ñoo ñu xam lu ñu war a def noo def di nga am di nga am ay revenus. fii ci Sénégal est-ce que day jaar ci cinq circuits waaw fii di Sénégal bien sûr parce que tey mal bi mooy dina jaar ci circuit yi ailleurs moo tax ñun amuñu possibilité di gis suñuy film loolu mooy équation numéro un tey la pirogue bu Moussa Touré boo doon laaj ñu ko seetaan ci suñu chaîne télévision amul presque benn yoon lañ ko mës a teg voilà donc loolu dañu war a interpeller par exemple Atlantique bu nati bu Mati Diop suñu mhm. télévision yi mosu ñu ko teg salle de cinéma ngay gis wala festival ah. dans les grands festivals ngay dem pour gis ko mhm. voilà donc tey dafa am yenn yoo xamante ne ñun dañ cee nekk en retard et c'est ça qu'on veut corriger maintenant pour corriger cela c'est simple il faudra que les gens accompagnent les initiatives comme les festivals yi nga xamante ne gars yi dañ koy teg pour ñu mën a am doole ba pare parce que tey bu ñu fi jugee suñu président de la république dem a accompagné le FESPACO mhm. pour que tey mu mën mu yegg ok ce son les entreprises ak les grands opérateurs qui ont accompagné ces genres d'initiatives là mhm. donc au Sénégal il faudra que ñu yegg ci dimension boobu ba pare maintenant nag tegaat ci beneen dimension mooy bu ñu bëggee ñu film yi tamit nit ñi di ko gis suñu en fait euh, télévision yi nañuy participer ci production wu film yi nga xamante ne mooy les films de court métrage que les jeunes cinéastes font pour révéler les talents de demain parce que suñ ko deful canal mu ngi ñëw Netflix mu ngi ñëw mhm. Pathé mu ngi ñëw bu ñu ñëwee tamit ñoom dañuy soxla de contenus mais contenus yooyu ñan ñoo koy defar mooy ñi nga xamante ne ils sont là les gens comme nous qui s'organisent petit à petit mm -hmm. on va faire des résidences de création artistique mm -hmm. on va produire des contenus mais qui va les financer ñoom ñooy ñëw financé ko moo waral ngay gis à plus wala ngay gis Canal plus di récupérer les contenu ok parce que tey noo télévision sont vraiment dañuy seetaan quoi mhm. donc bu nekkee ci côté série aussi voilà loolu waral mënuñu rivaliser ak le cinéma mooy ñoom da ngay ñëw ñu ne da ngay andi benn sponsor ñu def cinquante cinquante et cetera yow mi créer sa contenu mhm. yow yaay dawaat utiwaat beneen sponsor pour ñëw wane ko ci télé bi mhm. ñoom ñu la waroon accompagner sax am ay réseau duñ ko def mhm. donc ci qui rend les choses difficiles naa nag fu gars yi di def erreur di rabattre mooy dañuy dem ci YouTube et ils ne savent pas quand tu mets ton contenu sur YouTube c'est a les donc loolu c'est une erreur moo tax yaa a beaucoup de choses yoo xam te ne war nañ ko def surtout miser sur la formation. Mhm. sur la sensibilisation. et des jeunes pour ñu mën a xam les tenants les aboutissants du secteur bi nga xamante ni ñun moom lañ nekk. d' ñu ngi wax contenu euh, souvent man série yu may gis man yu may tàmm di gis à la lu tax euh, du ñu wane li nga xam ne moom la Sénégalais di dund le plus souvent. waaw mais déjà dama naan am na ñu koy wane mais lépp loo gis tamit dafa am waaw dafa am objectif yu clair. Mhm. tey bu nekkee yow sénégalais yi par exemple yow boo defee su projet amul benn entreprise wala benn opérateur bu lay accompagner pour sa réalisation mhm. nga am un bailleur boo xamante ne mën na la accompagner ci sa réalisation mais mun na la sama scénario sa scénario bii de wala sa projet bi bëgg naa nga defal ma ci lii ak lii ak lii mais tu vas l'accepter oui ou non ça c'est une question personnelle nga changer scénario effectivement li mu bëgg li mu bëgg voilà donc ça existe je donne un exemple am na benn série boo xamante ne mu ngi daw euh, ci benn télé bu mag voilà mais da ngay gis publicité yi ni muy ñëwee ci séeri bi mais là ce sont des effectivement wala bu ñu ko imposé wul mën a doon sponsoru série boobu financé ko mm-hmm. ok mais moom publicité yu mu doon fay mm-hmm. voilà day dem ci télévision mu couvrir loolu bu mm-hmm. dawee deux fois dans la semaine nga multiplier ko dans le mois voilà donc ça c'est de c'est la promotion pour cette euh, pour cette entreprise là et c'est de la publicité récurrente voilà loolu c'est un c'est un c'est un c'est point fondamental maintenant beneen bi nga xamante ne dafay dañ koy wone mooy par exemple boo xoolee doomu gaynde bu suñu doyen Mass Seck mooy Mass MASS bu Black Diamonds voilà hmm. mais c'est la réalité c'est la réalité des Sénégalais il a refusé voilà gars yi détourné orientation projet am c'est la raison pour laquelle au départ sponsor yi wuñ ko accompagner mais gis nañ réussite bu mu am il faut l'accepter dérapage la même chose bu ñu respecter les normes cinématographiques parce que y a le doyen Abdoulaye Wane qui a formation boo xamante ne dëgër na te il côtoie les cinéastes mm-hmm. donc du coup je me dis que dafa nekk mbir boo xamante ne kenn ku nekk selon sa dimension mu ngi ciy def li nga xamante ne moom moo ko war mm-hmm. mais tamit nag est-ce que nous nos télévisions ces jeunes producteurs ou bien ces jeunes entrepreneurs là pour que ñoom ñu mën a wone li nga xamante ne moom la Sénégalais yi dund dëggantaan yaay mm-hmm. maintenant une chose à noter le cinéma c'est de faire les gens loolu il faut faudra ñu taxaw ci aussi bu nekkul ne dañaa wane li nga xamante ne moom mooy rêver les gens il faut rêver pourquoi éveiller non pourquoi pas xam nga tout le monde est libre man mën naa ne damay bind samay roman par exemple wala damay def benn genre activité boo xamante ne mën naa ne c'est je suis non un non engagé mhm. je donne exemple comme politique moo xew gars yi ne ah man def fàtte naa parti au pouvoir mhm. ki ne man damay def opposition kii ne société civile laa bokk <laughs> noonu la demee dans le cinéma mën nga ne man damay def un cinéma engagé comme mm. Ousmane Sembène je dénonce les tares de la société avec à travers l'image et le son je fais la promotion de ma langue locale voilà en utilisant la langue locale par exemple le wolof par exemple mm. ou bien le halpulaar wala leneen mais kii mën na ñëw mu ne man bon je j'ai envie de m'exprimer j'ai une histoire voilà donc man damay utiliser langue tubaab wala langue allemand wala chinois wala japonais parce que le cinéma est universel quoi voilà y a le langage cinématographique par ailleurs qui mhm. obéit à des normes donc là munuñu leen ko bañal il faut faire rêver les gens loolu moo waral tey Sénégal ñu bëri dañ koy imiter ci sous-région bi mhm. maîtresse d'un homme marié beaucoup de personnes dañ koy suivre ñuy wax olof ñu koy ñu koy suivre bu baax du comprendre les histoires mais Sénégal dafa am dëkk yu mel noonu yu mel noonu il ne faut pas omettre ça ah. dafa am dëkk yu mel noonu <laughs> yoo xam te ne dañ ko war a wane. d'accord tey euh, gis nañ Sénégalais yi genre film yi nga xam ne moom la ñuy gën a consommer plus mu am des trucs vulgaires. gis nañ mm-hmm. ne Mame Mactar Gueye di fii ay film ba ñu suspendre woon ko euh, luy sa jàngat si loolu pourquoi sénégalais yi ñoom yooyu la ñu gën a ba parce que euh, par exemple benn série infidèle bu ñu defee benn numéro bu ñu ko defee YouTube di nga gis les millions de vues yi nga xam moom la ñuy am. c'est simple ça c'est l'hypocrisie de la société on naa une société hypocrite dañ koy dénoncer te pourtant hmm. loolu la ñuy gën a seetaan ah nu lu ñuy wax noonu dañ koy dégg ci ay bases scientifiques quoi parce que on ne tâtonne pas dans le cinéma on te dit que tout ce que doit être am nañ nag ay vocation yu bari voilà mun nañ bañ doon ay réalisateurs wala ay leneen ak leneen mais on est dans le secteur ok on sait ce que ça comment ça se passe jàng nañ ko xam nañ ko te ñu ngi ñaan yàlla maîtriser ko ba def yeneen yoo xamante ne mooy loolu mhm. mais ce qui et certain mooy loolu lu muy wane rek mooy la société elle est hypocrite mhm. d'accord loolu il faut ñu d'accord ci ba pare man su ma nee Sylvie mii noppuma ko wala bugguma ko saa waaye daraam du ma saf nañ waxante dëgg ok maintenant nag bu nekkee man damay dénoncer benn affaire boo xamante ne su ma tëjoo sama rukku di ko def ah mais toi tu te leurres toi mhm. il faut oser le dire maintenant nag ce n'est pas ok il faut dra le dire parce que censure yàgg na am ci cinéma maintenant nag ci série télévisée c'est une autre chose parce que nous on est dans le cinéma ñoom dañu am seen ligne de conduite ñun ñoo bokk même zone bi dañ leen ci accompagner parce que tamit nit ku tëdd xalaat vraiment bon da nga ko war a lii quoi parce que société bi li ci am moom lay génne am na dimension créative artistique mais la quasi totalité une fiction part toujours mm. d'un fait réel mm. gars dañuy sukkandiku ci fait bu réel bu am wala fait de société réel bu am ñu créer une histoire bi nga xamante ne mën na créer d'autres histoires yoo xamante ne peut-être nit ñi sax xalaate wuñ ko woon mm-hmm. Mm-hmm. mais finalement da ngay xool bul xool côté li ñu commencé mais finalité bi ngay xool mm-hmm. mais ñuy def lu bon le plus souvent boo seetaanee yenn série yi après dañuy am sort bu négative loolu il faut que ñu souligner ko mais pas nit ki def na dara rek voilà ñun ñëpp nañ ko diaboliser wala ñun ñëpp nañ ne waa lii c'est pas bien mhm. maintenant est que toute la société est comme ça mhm. c'est une un point d'interrogation mhm. bu nekkee côté cinéma y a des censures hein parce que nous on fait des projections techniques bu nekkee da def sa produit sa sa benn projet filmique ba pare y a des gens yoo xam ne dañuy ñëw y a les critiques de cinéma comme ñoom Père Babou Diop dañuy ñëw voilà comme nous aussi ñun tamit mun nañ ñëw parce que loolu dañuy intérêt ci programmation. Mhm. ñu nekk ci benn salle. ñu teg projet bi pour en fait ñu projet projeté film bi xool ko balaa kenn di ko xool mooy comme avant muy dem avant première. Mhm. ñu naan def ci commun ngandim communication. Mhm. il faut les professionnels ñëw toog xool. ah mais plan bii lan moo tax nga def ko par rapport ak plan B parce que bon histoire bi xaw na nduroog histoire diw et cetera et cetera. yow tu justifies sax parce que tu dois te préparer en conséquence parce que ce film mën na dem voyager représenter feneen. Hmm. maintenant bu boobaa yow doo wax. Hmm. film bi moom mooy wax parce que moom mooy yóbbu sa image. d'accord. voilà donc loolu dafa am solo quoi. moo tax balaa ñu ñëw ci objectif yi yow nekk nga ndaw yaa ngi nekk dans la production ndax yomb na wala yombul. bon déjà nekkaguma dans la production ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu background bi nga xamante ni mën nañu permettre ñu nekk dans la production ba mën a accompagner. des jeunes cinéastes qui son au Sénégal ou bien qui son dans les régions notamment à Diourbel ñu mën a def des courts métrages mhm. yoo xamante ne xëy ko mën a dégg ci àdduna bi parce que notre but c'est ça mhm. décentraliser les activités cinématographiques hors de Dakar muy mhm. benn deuxièmement je vais emprunter en fait à monsieur Abdelaziz Cissé euh, secrétaire général permanent du FOPICA ces mots lorsqu'on euh, render omage à Ababacar Ababacar Sam Mahram il faut alphabétiser le cinéma c'est très important cette phrase là da ko wax tak ça m'a ko inspiré parce que Sénégal nekkul ñëpp ñoo jàng français nekkul ñëpp ñoo mën a bind français on doit aller ci benn dynamique boo xamante ne dañuy war di mën a am des scénarios entiers en wolof comme Cheikh ante Diop ni mu ko doon théoriser ñun ci dynamique boobu noonu lañ nekk. Mhm. parce que tey bu ñu jëlee Diourbel c'est pas gratuitement kàllaama wolof dafa am doole dafa am yenn termes yoo xamante ne mu ñuy commencer réer donc ñun à travers ñun suñuy projet yu ñuy développé bëgg nañ am des scénarios en wolof et des scénarios en français hein, ou bien même en anglais anyway mhm. mais ñun ñu fexee am scénario yoo xamante ne de bout à bout c'est écrit en wolof mhm. parce que loolu lu muy jur mooy parfois di nga gis doublage yu gars yi di def nu ñuy prononcé wolof bi sax du set quoi bàyyi leen ci xel ngeen xool film yenn film yi daw ci yenn lii mhm. voilà dañuy def doublage voilà mais scénario bi c'est en ñu jël ay par exemple ñu war a wax loolu mais da ngay gis carrément dafa am décalage quoi donc yooyu tey pour ñu corriger ko franchement il faudra que ñu am des scénarios yoo xamante ne suñu langue da ciy figurer bu baax a baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. donc loolu moom je pense très bien que boo na ci suñu euh, suñu suñu si yitte. Mm-hmm. voilà mais euh, on est toujours des apprentis cinéastes. on est toujours des apprenants ñun ñu ngi suñu festival di doxal di ñaan yàlla. comme nii ñeneen ñu bëri aussi. Mhm. di mën di découvrir le festival en tant que tel. Mhm. jeunes yi dinañ ñëw Diourbel parce que là on attend plus de cinquante et un jeunes cinéastes maintenant. des mhm. passionnés e des cinéastes yi nga xamante ne ils exercent dans ce métier là. voilà qui doit rejoindre Diourbel. FESPACO bi ñu ngi ko organisé le mois dernier euh, participation ndaw ñi yow noo ko gisee. bon déjà participation ndaw yi est-ce que am na participation ndaw yi ñan ñooy ndaw yi déjà. voilà donc euh, peut-être euh, di sal di di saluer ñun doyen lañ leen di woowee Moli Kane mhm. voilà donc euh, ku ko forme formé moomu formé muy monsieur Abdel Aziz Boye que son âme repose en paix en par ailleurs ñun moom lañ déjee le grand prix d'Abdel Aziz Boye parce que on a constaté que au FESPACO on a créé des euh, des des des monuments voilà ou bien des statues pour Ousmane Sembène pour Ané Gomis pour ay les grands noms ici au Sénégal amaguñ ko mais ñun lu ñu am si fu ñu toll bokk mooy am un grand prix du Bawol Film Festival ñu tëj dëjee ko monsieur Abdel Aziz Boy pour mu immortaliser li nga xamante ne mooy mémoire am. Mhm. maintenant Mouli Kane gagné na poulain d'or loolu on s'en réjouit quand même. Mhm. c'est un c'est un jeune ci nuñ ko gis-gis mais ñun suñu doyen la quand mhm. dañ koy féliciter di ko encourager. ok Mamadou jaw aussi la même chose avec Bambou Nafi voilà donc euh, wala boog en fait Fatou Kandé Senghor aussi. bon doyen la. Mhm. voilà donc euh, dérapage bon Abdou Lahad Wane aussi c'est un doyen voilà donc tey satisfaction la ñuy am quoi satisfaction la ñuy am. Sénégal dem représenter li nga xamante ne euh, en fait film yi dem représenter Sénégal et par ailleurs ñu am ci deuxième prix bi nga xamante ne moom moo gën a mag ci FESPACO qui est un festival international panafricain euh, ok donc mënuñ def lu dul jaajëfal leen di bég ci loolu di kontaan ci loolu et pratiquement euh, di ñaan yàlla tamit bon ñu mën di dugg ci région yi wane loolu mhm. pour que nit ñi xam ne c'est possible et pratiquement il beaucoup de choses à faire quand même dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif euh, Thierno Baol Film mi ngi waajal ay projet ci mhm. Diourbel ce que c'est laata nga ñëw seen projet yi d'accord déjà Baol Film Festival c'est un festival euh, cinématographique de court métrage pour le moment on est à notre euh, cinquième édition voilà donc qui se tiendra du 19 au 21 novembre incha muy vendredi bii di ñëw samedi et dimanche voilà donc euh, on a un parrain reconnu mondialement sur le plan cinématographique mm-hmm. muy mm -hmm. Hubert euh, voilà donc Hubert Labandaw voilà nous a fait l'honneur d'être notre parrain sur le plan cinématographique et il va revenir à Diourbel incha allah animer des masterclass avec les jeunes qui seront là-bas et les jeunes euh, de ce de ce de cette localité là. Mm. voilà donc euh, le Baol Film Festival c'est ça ñun suñu objectif. c'est de faire la promotion du cinéma dans les secteurs les ou bien dans les zones les plus défavorisées voilà maintenant bu ñu choisir par exemple euh, Diourbel c'est pas gratuit parce que tey Dakar xam nañ ko. Mm-hmm. am na événement cinématographique opportunité yi bëri la nekk Saint-Louis. am na festival de jazz par exemple même bu nekkee c'est pas dans le cinéma voilà mais am na film am na festival de documentaire boo demee Ziguinchor pareillement c'est une zone boo xam te ne c'est bien visité mais par exemple nga ñëw Diourbel c'est la zone centre qui a des potentialités te parvenir ñu exploiter ko parce que a la deuxième ville économique qui est là-bas mm la commune de Diourbel ou bien la ville de Diourbel regorge benn potentialité de tourisme reli en fait religieux boo xamante ne dafa am doole c'est là-bas où Cheikh Ahmadou Bamba de vingt-cinq c'est là-bas où en fait euh, Mame Cheikh Ibrahima Fall a sa maison voilà avec tout ce que mu lu mu amoon comme matériel et autres voilà donc c'est visité par des étrangers mais non qui n'est pas visité par nous quoi nous sénégalais ñun lu ñu booleek Diourbel mooy màggal jot ñu dem mu jeex ñu ñibbisi te Touba lañ jëm or Diourbel am na kër gu mag am na résidence Khadim Rasoul am na voilà résidence surveillée bi am na kër Mame Ibrahima Fall voilà am na euh, yu bari yoo xamante ne gars yi war nañ ko xam quoi moo tax ñun hormis promouvoir le cinéma ou bien les métiers du cinéma on veut articuler nos activités cinématographiques avec le tourisme religieux c'est la raison pour laquelle dans notre propre programmation on l'a très bien très bien très bien énuméré voilà et ça va nous permettre aussi ñu mosul ñëw Jurbel bu ñu ñëwee Jurbel voilà dinañ fa gis ay affaires yu extraordinaire quand même mm-hmm. donc loolu moom mooy la Baol Film Festival deuxième point bi troisième point bi moom mooy fexe de telle sorte que le Bawal Film Festival soit l'événement des jeunes cinéastes d'ici et d'ailleurs bu ñu nee d'ici et d'ailleurs mooy les jeunes cinéastes du Sénégal. Mhm. mais aussi de la diaspora et du monde entier. Mhm. parce que dans notre programmation on reçoit boo xoolee suñu catalogue bi on a quinze films qui doivent compétir mais quinze films yëpp am na nationalité yëpp ak continent yëpp donc on reçoit beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de films que ça soit documentaire comme fiction yoo xamante ne c'est partout dans le monde. voilà muy Colombie muy France muy Sénégal muy Togo Burkina Faso Mali j'en passe quoi anyway mm -hmm. maintenant tout ça la tey lu mu ñuy permettre mooy arriver à un certain moment ces gens là mm -hmm. venir au Sénégal mais pas venir à Dakar parce que y a le confort y a tout mhm. mais venir au niveau de la ville de Diourbel nga xam ne tey dañ koy internationaliser donc vendre la destination de Diourbel promouvoir le métier du cinéma et le cinéma de façon globale voilà donc ambitionner créer des emplois directs au niveau de la base pour wàññi aussi lu ñu tuddee exode rural ak l'immigration clandestine yi nga xamante ne peut-être lu koy favoriser mooy manque de préoccupation mhm. voilà donc euh, permettre daal opportunité yi am Dakar mu gën a jege askan wi ndaw yi nga xamante ne mm-hmm. dañaa nekk ci zone yi nga xamante ne dañaa dañaa reculer quoi. Mm-hmm. donc mais su ma la déggoon événement bi c'est international du ñu nekk Diourbel kese ngeen di jéem a promouvoir. oui oui c'est inter da ngeen koy defee Diourbel kese mais mm-hmm. c'est ouvert à tout le monde. c'est ouvert à tout le monde mais bon dimension internationale ci festival dafa xaw a 51 personne rëy na ci gars yi bu ñu ko déggee quoi mais ce pour un festival un à une édition boo xamante ne peut-être Baol Film Festival dina am plus de deux cent cinq cent personnes yoo xamante ne trois cent yi dañuy dagg seen billet ñëw Sénégal xam nga jël oto dem Diourbel fanaan ci euh, auberge yi ci euh, hôtel yi. Mhm. voilà partager des moments forts jëlaat oto ñëwaat Dakar jël avion dem. Mhm. ñu contribuer ci économie. Mhm. locale déjà donc ñun dimension boobu la ñuy tuddee bu boobaa suñu festival. wala boog festivalu jeune cinéaste du Sénégal muy la Baol Film Festival am na benn dimension internationale. Mm. mais pour le moment on envisage ça sur les films moom am na dimension internationale loolu moom dëgg la quand même. Mm. mais sur le sur le terrain. ça reste parce que il faut que les les les les sponsors viennent accompagner ça pour que ñu mën a faciliter ñi nga xam ne dañu war a jënd seen billet ñu mën di ñëw def des rencontres avec d' autres peuples am une ouverture avec d' autres voilà jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk partout dans le monde doon ay jeunes cinéastes animés par la même passion ñu mën di ñëw au niveau de Diourbel visiter déjà li fa nekk et pratiquement bu boobaa ñun dinañ egg ci benn dimension boo xamante ni mën nañ tuddee festival le Baol Film Festival egg na ci dimension international Mm -hmm. mais là dans notre tête on est à notre cinquième édition ñun on ne fait que commencer. d'accord chaque année da ngeen di promouvoir les jeunes talents. effectivement bon nu ñu leen di promouvoir c'est simple donc euh, a des prix. à à des prix loolu ñu tuddee motivation lay doon parce amaguñu xaalis boo xamante ne mën nañ jël benn dix millions ñu jox ko benn film bi nga xamante ne ndaw ndaw ñi réaliser nañ ko e pratiquement pour pour wan ne ko li travail bi nga def nii ñu ngi la ciy jaajëfal parce que mérité nga li nga xamante ne moom mooy les dix millions ñaan nañ yàlla egg foofu mm. mais pour le moment on a trois prix voilà c'est le prix euh, c'est le grand prix bu Abdel Aziz Boy c'est notre professeur bi nga xamante ne voilà loolu lañ ko mën a loolu lañ ko mën a loolu lañ ko jagleel voilà beneen prix bi mooy le prix maire interprète mhm. voilà mooy comme tey ni nga ko prix acteur ou actrice quand même voilà beneen prix bi mooy le prix du public trois prix yooyu noonu pour le moment ñun moom la ñuy mettre au devant de la scène voilà donc incha allah communauté de comité de visionnage visionné vision vision visionna en fait xool nañ film yëpp. Mhm. ba pare am nañ ay notes am nañ ay retours on a une idée de comment ça va se passer le public aussi va venir dinañ tamit contribuer sur euh, li nga xamante ne mooy vote yi pour que tey ñu mën a décerner ces trois prix là aux jeunes cinéastes yi nga xamante ne participer nañ ci Bawol Film Festival édition en fait 2021 euh, bi. donc loolu la ñu am. donc à part euh, festival bi ngeen organisé chaque année Baol Film est-ce que day produire ay film non non on produit pas lu ñu gën a lu ci lu ñu gën a def focus mooy la formation des jeunes voilà la formation des jeunes ñu ngi def suñu kéemtulaay kattan. si mhm. suñu secteur bi nga xamante ne ñun moom lañ nekk. Mhm. ay borom xam-xam yu nekk dakaar mën fee jóge dem fi nga xamante ne mooy Diourbel pour former ndaw yi fa nekk am na nag ñu fa former avec cinéma pour tous ci côté documentaire ak Mobi Ciné ci côté gestion culturelle ok gestion d'entreprise culturelle et cetera et cetera donc on a une satisfaction boo xam te ne mën nañ ci duut baaraam. Mhm. am na benn série buy daw justice à tout prix bu suñu suñu suñu suñu suñu xarit suñu rakk def muy fàllu bañ koy forme lañ gis talent boobu. Mhm. mu produit scénario bi mu ngi daw wal fajiri bon pour mhm. ne pas faire de la publicité baal leen ma ci loolu. voilà donc loolu lu tangible la quoi lu ñu mën a téye. te Diourbel la ñuy defee lépp donc ñun loolu lañu bëgg loolu la ñu am comme ambition acteurs yi fa lañ nekk voilà décor yi fa la lépp lu ñuy def fa lañ koy defee quoi maintenant nag bon bëgg nañ comme ñu ko ñoom xalifa Ba defee woon waa Mbaro di ñëwaat Diourbel utiliser no décors et nos locaux et nos restaurants pour participer ci économie bi tourné fa ay scène voilà dafay dundal la ville et euh, pratiquement dina permettre ñu xam yeneen facette en fonction ñoom de leur euh, en fonction de leur euh, de leur de leur de leur de projet mhm. ci beneen anam Diourbel quoi donc tollooguñ ci dimension mhm. produire ay nit d'accord voilà donc xam naa tey moom Sylvie yaram bi dafa xaw a raakaajo tuuti moo tax dafay xaw tàng ndax cinéma moom da cee xaw a kii lool donc man li ma gis moom mooy Sénégal ñi ñu naan ay cinéastes lañ wala ba ñi nga xamante ne ay producteurs lañ daanaka dañuy dañ dañuy xawal dañoo xawal laaj ji xawma xawma xawma na ko mën waxee parce que mënuma comprendre buñ ne eh, wax nga sànq ne le cinéma c'est faire rêver donc ki ngay rêver da dee fekk nga rêve lee ko ci ci ci benn ci benn côté rêve boo xamante ne day nekk rêve boo xamante ni euh, rêve bu superficiel la wala boo boo xamante ne day nekk lu artificiel mhm. donc première mooy buñ gisee yenn dëkk yu bëri yi nga xamante ne ñoo ñu war yu wër Afrique mhm. seen cinéma la promotion de leur pays promotion de leur culture mm-hmm. buñ gisee ñu saan yu bëri yi am fii ay ay ay ay chaîne chaîne euh, yu bari bëri ñoom seen ay dëkk la ñuy wane àll bi la ñuy wane wane du ñu wane mukk la luxe mais Sénégal seen cinéma cherche toujours à part ñi nga xamante ne ay ay cadre yu mag lañ ci ci cinéma ñoom dinañ dinañ wane tuuti li nga xamante ne mooy euh, réalité sénégalaise mais lu ci bëri bëri luxe la ñuy wane euh, dem à fii alors que Euh, de cinéma bi yow da nga war def formation si dëkk bi nga xamante ne parce que da nga si destination euh, boo gisee dëkk yooyu ñoom seen seen ay euh, culture la ñuy wane lu ci mel ne dëkk bi nu mel yan culture moo fa nekk il parle du genre affaire la ñuy wax mais mais Sénégal fii Sénégal laay gis ñu ne ñu bëgg a bi wane ay ay luxe fii wane ay hôtel de kii dem dem ku ku ne di wane sa morom ne man. oto bi laa war dawal wala affaire alors que c'est pas ça ça le cinéma loolu loolu moo bloqué euh, producteurs yu bëri parce que dañ naan ñoom li ñu bëgg moom mooy def cinéma boo xamante ni permet de vendre le Sénégal parce que boo nee le luxe français yi ngay woon luxe ñoom ñoom ñoo la ëpp luxe donc ñoom cherche ñu loolu ci sa dëkk. Mm-hmm. am na leen loo xamante ne mooy tax déplacé wu di ñëw ci sa dëkk boobu. Mm-hmm. parce que fekkoon ay ay ay gratte-ciel la fekkoon ay immeuble la waa état États-Unis am nañ ko américain am nañ ko euh, français am nañ ko mais li tax ñuy Sénégal am na leen lu ñuy chercher à trouver si dëkk bi. Mhm. te loolu ñu ngi ko war ñu ngi koy gisee si li nga xamante ni moom mooy. Euh, film yi fi am lu ci mel ne li ci mel ne gore pourquoi pas du li nga koy faral gis du bëri te gore am na am na lu bëri bëri loo xamante ne war nañ ko mën a mën a mën a euh, ci cinéma lu ci mel ne l'histoire du camp de Thiaroye duñ ko wane lu bëri mhm. mais à chaque fois man yéen yéen ñi may gis xamoon ndax yow si si cinéaste nga bokk si producteur nga bokk mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy produire la plupart production yi ñuy def dañ naan du ma produire ci leen loo xamante ne daanaka du ma si gis sama bopp parce que ki produire gaa gis na xaalis mais moom ay distinction la ci wër ñu ñu yóbbu ko fi nga xamante ne moom moom mooy festival César wala lu mel ñu ne jël nañ benn euh, kiiw africain wala comme comme ki ñu ki ñu euh, prix Goncourt bi nga xamante ko mu mm-hmm. ñu xool naan fii ak ci kanam jox ma prix boo xamante ne bu mag la boo xamante àdduna bi yëpp dañ may dañ may dañ may may félicité mm-hmm. donc yéen pourquoi pas ngeen ngeen mais euh, le fait ngeen ne c'est pour faire commencé faire rêver mooy nga wan ko ne ko Dakar am na ay gratte-ciel Dakar am na immeuble yoo xamante am na ay ay douze étages wala vingt étages il faut porter des diamants du genre est-ce est loolu loolu mooy réalité théâtre wala yéen euh, léegi théâtre dañ ko daan dañ ko métamorphosé doo ko ci biir ci biir série ba ba nga xamante ne fi mu nekk nii sénégalais mënut ñëw distinguer lii mooy cinéma lii mooy mooy série parce que foog foog yéen ngeen ngeen leeral sénégalais lii moom mooy moom mooy moom mooy cinéma lii moom mooy moom mooy moom mooy euh, série yi nga xam ne nit ki bu bu bu toogee. yemal foofu parce que. waaw non non non 6 minutes mu tontu rapidement. da ngaa lekk sama sama temps mais mais ma garaaw la ko am na benn yoon lañu mën a kii mais loolu moom foofu mu foofu mu ñëw si lan moo waral loolu parce que fi mu nekk nii tant que loolu mi ñu am ba léegi euh, producteur du duñ duñ duñ nangoo ñëw parce que dañ naan amuñu leen loo xamante ne bu nañ ko mën a mën a mën a góndee tubaab bi lu dul suñu culture wala boog suñu suñu réalité effectivement déjà maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay remercier ci question boobu ñun boo xoolee le Baol Film Festival loolu mooy objectif am vendre li nga xamante ne moom mooy la destination de Diourbel à travers le cinéma et l'audiovisuel ñun loolu lañ moo nekk suñu objectif number one peut-être am na lu bëri loo xamante ne war nañ ko war a gën a mën a defaraat mais loolu ñun dong mënuñu ko mm-hmm. moo tax on fait appel en fait à tout le monde parce que comme sama professeur nu mu ko doon waxee rek Abdel Aziz Boye le cinéma c'est pas l'affaire d'une seule personne mm-hmm. mais c'est ñu bëri tey ñu ngi utiliser le cinéma pour wane seen culture pour wane seen décor naturel bi ñaam mm. mais aussi il ne faut pas oublier que ñu bëri ñu ngi utiliser le cinéma pour wane seen i gratte-ciel mm. pour wane seen i luxe mm-hmm. et cetera et cetera loolu question de choix la question de liberté la yow tey fi nga sentir sa bopp jàpp naa ne foofu ngay gën a nekk à l'aise pour def sa liggéey maintenant nag wax naa la sànq exemple suñu grand masse ñu ngi koy salut de passage ak doomu gaynde décor naturel la yër mhm. wane wu fa luxe mais pourtant ça nous parle nous en tant que sénégalais mhm. di nga gis keneen koo xamante ne peut-être luxe mu ngi ciy dund mhm. bu seetaanee par exemple benn production de passage maa ngi nuyu ñoom xalifa boobu mbaru du TV mën na gis gis boppam donc question de goût ak de feeling bu ñu ko mënee tuddee noonu. maintenant bu nekkee mais pourquoi inspiré wu ci ñu njëkk. bu nekkee ne Ousmane benn daaw promouvoir na même fekkee Sénégal temps li muy génne moom mooy réalité Sénégal lu ci mel ne mandat bi lu ci mel ne émité yi lu ci mel ne le camp de Thiaroye gisoo ne day day day moom moom mooy le luxe bi nga xamante la grave mais bu nekkee cinéma par exemple nous on t'invite à venir à Diourbel. Mhm. vous allez voir les films de court métrage mhm. yi nga xamante ne moom la ndawi def mhm. nga gis carrément les réalités yu ñu ciy traité ak sujet yu ñu ciy abordé mhm. de façon spécifique tu verras tout li nga xamante ne yow yaa ngi koy wax mooy comme sànq li may wax malchance bi mooy amuñu ñun possibilité di xool film yi nga xamante ne ñun suñu ndaw yi ñu ngi koy defar mais lu ñuy gis mooy série yi nga xamante ne mu ngi daw ci télévision yi tout à moom laa la wax man dama bokk ci ñu gëm ni tey télévision yi dañaa war a accompagner production ndaw yi. pour muy daw ci télévision yi. parce que benn film boo xam te day durer six minutes nga def ci réflexion pendant six mois neuf mois un an ou deux ans ñu teg ko ci télé loolu c'est la qualité. tey ku ko seetaan dina gis li nga xamante ne yow moom ngay wax muy décor yi naturel yi. yére yi nga xamante ne moom la gars yi di sol je donne l'exemple tey bu ma nekkee Diourbel su ma solee sama maxtum sol sama baylaat. sol sama lii ak samay mbarakis mais loolu je vends cette je vends je damay jaay loolu. tey keneen tey mën na ko inspiré ba muy dem bay solo noonu la preuve gars yi da gis ñoom te dañuy sol ay yëre indo fii Sénégal boo génnee fii di nga gis ne dina sol dina sol dina sol grand mbubu olof dina sol Obasanjo dina sol euh, turki njaareem dina sol bu dee góor yi laay wax ne ñoom laa gën a yàpp mhm. dinañ sol yëre ibaadu yi mooy euh, jàllaabe yi voilà di nga gis ko sol yëre indo mais pourtant dañ kaa gis tailleur bi gis ko ñu créer confectionné et pratiquement di ko jaay nit ñi nit ñi di ko sol mais ñun tey loolu lépp dañ ka bëgg tey fësal ci li nga xamante ne ñun moom la ñuy def à travers nos productions mais surtout à travers le Bawol Film Festival moo tax ñun au niveau de Diourbel franchement parlant avec le Baol Film Festival képp ki nga yaa ngi fay ñëw. Mhm. tu vas voir des choses yoo xamante ne existe à Diourbel même bu nekkee amuñu les moyens. Mhm. wane ko ci télé yi mais parce que dafa dafa wax wàllu parce que plateforme ba yu mag yi moo leen koo am accès mais am na yu fi nekk Sénégal fi yu mel ne ay ay la demande yu ci mel ne réseau câble yu mag yu fi nekk donc pourquoi pas ngeen dem di ko def foofu yenn euh, entreprise yu locaux yu nekk foofu ngeen jëm ak yéen bañ bañ a viser entreprise yu ngand yi ne foog ma gis entreprise bu mag pour mu ma alors que am na yu ndaw ndaw yoo xamante ni boo demee kii mën na mën mën na financer yére yi kii mën na financer lii kii mën financer lii ngeen dajee lool ah d'accord déjà déjà bu nekkee pour réseau câble yi nous on parce que nous lu ñu bëgg a ko bëgg teg ci yoon bi nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko tegee ci yoon boobu dina mën a def dina mën a wër àdduna muy benn deuxièmement ñun defuñu théâtre ñun cinéma la ñuy def nuance boobu noonu il faudra que ñu sensibiliser nit ñi éveiller leen ci loolu spectacle ou bien théâtre quatrième art la le cinéma c'est le septième art théâtre bi ñu ko waxee spectacle sur scène la maintenant nag avec monde bi fu mu jëm cinéma dafa ñëw am doole voilà il faut que ñu def ce qu'on appelle une reconversion mm-hmm. ñuy def théâtre il faut que ñu def une reconversion bu ñu defee une reconversion dinañu mën a permettre ñun ñu mën leen accompagner former leen pour qu'ils ou bien pour qu'elles deviennent des acteurs ou bien des actrices mais ñoom dañu am ay dénomination yu très claire nous à l'université première année ngay jàngee théâtre avec le professeur Diakhaté mais troisième année ngay commencer découvrir le cinéma donc mm. divan dimension bi gis nga lu mu rëyee mm. maintenant nag loolu tey lu muy jur mooy dañuy am problème de dénomination mm. le comédien l'humoriste mun na dugg ci benn lii rek mu ne non man léegi acteur laa quoi. Hmm. mais hmm. doo acteur. alors ci benn école de formation pour l'actorat ministère de la culture na duggoon na loxoom seen festival bi. waaw si franchement on a eu en fait euh, l'information ce matin euh, non non avant voilà avec la direction du FOPICA ñoom ils vont nous accompagner pour euh, cette édition. parce que tamit bon ils sont conscients du travail bi nga xamante ne ñun ñu ngi koy mëne en tant que ndaw hmm. et euh, boole suñu doolee ñun ñëpp ñi nga xamante ne ay ndaw lañ di liggéey ci euh, secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif voilà bëgg tamit booster li nga xamante ne moom la gars yi di def hors de Dakar ñoom wax dégg fa yàlla à travers euh, la direction du cinéma et du FOPICA. Mmh. voilà Aziz Cissé nous a confirmé cette information. et ils vont nous accompagner pour la cinquième édition du Bawol Film Festival qui aura lieu à partir du 19 au 21 novembre non pas at bu jot quand même parce que à notre souvenance voilà c'est la deuxième fois première bi joxoon nañu bus hmm. bu yóbbu mais bi ils ont ils ont tenu à nous accompagner réellement hmm. pour que ñu mën a relever le défi de l'organisation parce que présentement attendre cinquante et un personnes mhm. c'est-à-dire ñëpp doon ay jeunes voilà donc du lu yomb pour un début on rêve nag avoir euh, deux cent personnes à Diourbel pour le Baol Film Festival Babacar a ngi taxaw wala ñëw journal <laughs> waaw mais déjà tàggatoo bi mooy euh, di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, ci bërëb bi nga xamante ne mooy réew mi réew mi FM voilà gis naa réew mi quotidien et réew mi TV xam naa ne dingeen ñu di ngeen ñu gën a jàppale. ci mhm. suñu communication. Mhm. te ngeen xam ne aussi euh, ay ndaw lañ yoo xamante ne ñu ngi soog a door. voilà on est à notre cinquième édition. ñu ngi soog a door parce que ñu ngi soog a am voilà li nga xamante ne moom mooy ouverture bi nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko amee tey. Mhm. lu ñu bëgg a def sensibiliser sensibiliser nit ñi ci secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. xam leen en fait yëgal leen xamal leen opportunité de création d'emploi yu ci nekk. Mhm. je pense très bien que loolu doon lu am njëriñ pour collectivité locale yi nga xamante ne ñoo nekk biir Sénégal. Mhm. ak l'état du Sénégal en tant que tel. c'est la raison pour laquelle ñun ñu ngi invité ñëpp bàyyiwuñu kenn mm. nga dëkk Diourbel ak nga bañ dëkk Diourbel nga am passion wu cinéma nga bañ a am passion wu cinéma ñun ñu ngi lay invité ci Bawol Film Festival bi nga xamante ne moom mooy am du 19 20 21 novembre au niveau de la région de Diourbel mm. di incité aussi que ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci côté tourisme mm. qu'il accompagne ces genres d'initiatives yi nga xamante ne mu ngi am njaareem comme mu ngi am feneen ak feneen parce que loolu lu mu ñuy permettre mooy comme li nga wax nii tourisme bi nga xamante ne mooy le tourisme religieux ñu mën ko jox li nga xamante ne mooy kattan donc sur ce di remercier suñu parent muy euh, Hubert Labandaw bi mm-hmm. nga xamante ne il va effectuer le déplacement de Dakar à Diourbel pour la mm-hmm. première fois mm-hmm. assister li nga xamante ne moom mooy ay frère ay doomam ay sëtam ay jarbaatam ak partager ak ñoom ay master class di jaajëfal aussi waa FOPICA ou bien à la direction du cinéma ci information buñ ñu wax vraiment donc euh, mënuñu def lu dul invité ñëpp voilà di ñaan yàlla nag moom ñi nga xamante ne ay doomu njaareem lañ bu ñu mënee rek leen bus daar daar boo xamante ne mën na def cinquante places ou cent places mhm. nañ ñu mhm. voilà donc ñu mën a jël xale yi ou bien ndaw yi yóbbu leen njaareem ñu passer la fête merci Mofar. non kon ko jaajëfal léegi dina encouragé ci loolu je pense que euh, comme ni nga ko waxee rek il faut ñu def distinction entre cinéma ak théâtre bi nga ko defee loolu rek je pense que euh, secteur cinéma Sénégal dina développé di la jaajëfal. merci beaucoup Mofar merci Mofar merci Thierno euh, Bakhoum directeur Bawol Film Festival di gërëm Adama moo fettoon ci cabine technique bi di gërëm suñu auditeurs yi ak ñu doon suivre ci page Facebook bi Babacar mu ngi ñëw léegi ah grignoté nañ 3 minutes <laughs> daf ñu koy jéggal jox dig daje mercredi bii di ñëw même heure beneen thème ak beneen invité